yonent yàlla Youssouf nag ñu ngi ci treizième épisode bi euh, ci fu mu commencé di nekkoon ci néegu bàjjan bi léegi xam ngeen ne bàjjan bi moo ko yore yore na ko pendant deux ans ou quatre ans yoo xamante ni moo ko war a yore euh, Youssouf a ngi noonu nag di nelaw di nelaw far gént waaw gént na gént gu doy waar euh, bi mu géntee nag bi mu yeewoo wax na ko bàjjan bi bàjjan bi ne ko nañu ànd nga wax ko sa papa. Euh, ñu dem ci kër papa ji biñ demee Youssouf nettali gent gi waaye bi mu koy nettali frère yi ak euh, tantam yeeg yëpp ñu ngi toog euh, ci ëtt bi ak waa dëkk bi yëpp sax mën nañ ni bu la neexee ñëpp a ngi toog bi mu nettali gi saa lañ ñu bëgg wax foofu mooy gént gi nekkatul privé nekk na léegi ñëpp xam nañ li mu gént lan la léegi nag mun leen dafa gént sama rak yi di sàmm sama mag yi mooy yi ci àll bi moom mu fekk leen ci àll bi waaye ci biir sàmm gi mu ngi yor benn bant euh, bant boobu nag bi mu ko sampee rek dafa daal di sax meññ nekk ak garab garab googu nag nekk garab gu rëy rëy nag euh, di mbaaral frère yi waaye Yaqub moom moo nekk ci suufu garab moo gën a jege garab gi exemple euh, moom loolu la gént mu géntee nettali ko papa ji xam na firi gént mën na gént parce que pour wala ne rek gént dañ koy firi ñu bari ñu ngi rawante ci firi gént ndax gént dina am lum la wan ak yan sarax nga war a def ak yu demee noonu ak lan la lay wan jàngal biñ ko waxee rek papa ji daal ne ah loolu de gëwuma mu mën a nekk dara loolu moo xam naa ne du géntu dara waaye am na ñoo xam ne seen xeel xaw na ñaaw tuuti xaw na teey tuuti ci gént boobu parce que yonent yàlla yàqu buggul a firi gi carrément jalousie commencé di am ci entre Youssouf ak ay frère am moo tax mu ne ko gént gi daal du dara waaye bàjjen bi tamit wax na ko loolu ne ko gi gaw moom mu nekk dara mais yonent yàlla Youssouf papa ji moom xam na ni gént gi li mu firi mooy que ne yonent yàlla Youssouf moo koy remplacer peut-être mun ko ah waaw loolu kom la rek xëy na moom yaag sa frère yi da ngeen nekk ci état yu baax ak yu demee noonu di ko expliquer di ko wax ni ko loolu jàmm la Euh, frères yëpp xaw nañoo comprendre tuuti mais dañoo xaw a dañoo xaw a dañoo xaw a ragal tuuti quoi mais xaw nañoo soupçonné ci gént gi euh, daal te jëndee ko bàjjen bi mi ngi koy wax mi ngi koy wax Yuusuf naan ko xëy na yaay nekk yonent bi yaay nekk yaay jël nubuwa gi yaay mu naan ko yaay lan mooy yorant lan mooy nubuwa lan mooy risaala euh, ba ma war koo nekk naan ko non du loolu dara yonent mooy ñi nga xamante ne ñooy remplacer seen papa ñooy sol yéen yonent yu demee noonu di ko wax noonu mais moom mi ngi koy gëm na ni daal gént gi gëm na ni amul dara amul loo xamante ni daal lu spectaculaire la lu garaaw la lu nekk ci gént gi du dara xam na daal yonent bi daal lu war a nekk mais noonu du ko du ko wax ko ko moom mais xam na nag léegi qu'est-ce qui va se passer réellement donc Youssouf mi ngi laaj lan mooy yonent mi ngi demandé ak yu demee noonu mais bu ko ko kenn nettali loolu la yonent yu yàlla yàqub décidé ni bu du ko ko leeral carrément daal pour mu mën a xam ndax su ko ko leeralee rek euh, doom yu commencé di ko ko sonal mais nag frères yi gis nañ ni eh, yonent yàlla yàqub ngi gën a bëgg Yuusuf euh, ba benn bis sax ñëw nañ sàmmi nekk ci àll bi noonu Euh, yonent yàlla euh, Yaaqub toog bi mu toog ci kër gi rek xelam dem na ci Yuusuf maanaam namm na ko bëgg na ko am na benn amour bëgg na ko fekk si ci àll bi bu jekk ba caag rek daal di leen di fekk xale yi ci àll bi ñëw ni leen dama leen di wéetali si tey xale yi dañuy sàmm comme que dañuy sàmm ñu ngi ci àll bi mu leen ñu ne ko ah papa yow da nga géej xam nga bàyyi woon na sàmm gi ak xale yi mu leen tey daal dama ñëw indi leen lu leen lekk bi demee noonu ñu ne ko ah ñun lekk ak demee noonu mu ne dama nekk rek seen sama xalaat nekk ci nekk ci yéen sama xel nekk ci yéen mais eh, fekk xel mi ci Yuusuf la nekk maanaam diggante bi nam mun a fi nam Yuusuf nam goo xam ni bëgg na koo seet léegi nag mu daal di dem xale yi daal toog commencé wax papa waaw kay nam moo nañ la yu demee noonu waa papa daal dañoo gis ni Yuusuf ñu ko bëggee ak ni mu la jegee ak yu demee noonu xam nga ñoom it ñu ngi commencé di di am benn jaloux. di di débat commencé di débattre ci géntu yonent yàlla Youssouf gént gi lan la war a nekk ak yu demee noonu kon ñoom ñi ngi commencé di étudier di poser benn acte ci yonent yàlla Youssouf ak yonent yàlla Yaqub mais Yaqub moom xam na réellement ce qui va passer muy ci gént googu kon nga xam ni gént googu nekkul géntu hasard nekkul géntu xale mais gént la goo xam ni am na sens am na lu muy firi te ci yeneen épisodes yi dina gën a mën a leer dina gën a mën a développer wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu